asalaamaaleykum mbokki ak ami internet ci Dakar yu ñuy siibar ñoo leen di nuyu di leen ziar ñeenti jour nag moo des si tabaski bi tey ñu ngi taxaw ak kenn si ñi nga xamante ni ñooy jaay ñi nga xamante ni mooy xar yi ñu fas leen dégg suñu micro laaj leen nan nanu ñuy dundee moment bii nga xamante ni tabaski bi des na ñeenti jour 4 jours ku nekk xam ni bëri na bëriwul mais est-ce que clients ngi ñëw loolu moo am importance tey ki ñu taxawal nii kenn la si nga xamante ne ñooy def opération xar fii nga xamante mooy deux bi dañ koy suñu micro moom kilifa gi nuyu ko bàyyi ko mu nuyu mbokk amee internet ci Dakar yi nga xamante ñoo ngi koy siiwal seen site internet bi ci Dakar kilifa gi nuyu naa la maa lay ziar bu baax maa lay nuyu di la ziar naka la man maa ngi tudd Mor Diouf laa tudd yaa ngi fii man éleveur laa bu dëkk jàmm gën si Kambaaw di jaayee waaw dix ans yaa ngi fi. dix ans maa ngi fi jaay si xar si même bi ñu mel ni boobu ak léegi clients yi ñu ngi ñëw di seet si xar waaw bon d'habitude fii njaayam Dakar trois jours yu mujj yi ci lay gën di yëngatu moo da di il faut ngay teel a ñëw comme ça nga mën a jàpp place bi parce que boo yéexee ñëw boo doo ñëwee doo am place bon place bi ça va ku nekk place bi nga doon jaay daaw boo ñëwee maire bi moo la ko joxaat bon dañ koy maintenir quoi mais su fekkee ne teeluloo ñëw. souvent dañ ko jox keneen parce que dañu yaakaar ne doo ñëw loolu moo tax ñu gën di teel di ñëw quoi. mën nañu xam prix xar yi lu mu fu mu toll jamono ji. waaw prix xar yi xar bu nekk am na fi quoi bon pour sénégalais bu nekk quoi waaw de cent mille cent vingt cinq mille fa la affaire yi tàmbalee bàyyi am na ci bon xar moom prix bu ne am na fi parce que léeg sax ñu génn ay xar yoo xam ne nii dañ koy jaay mais jaayuñ ko pour tabaski parce que dañ koy jaay parce que borom doyal na ci éleveur moo koy jëndaat dem yóbbu ko këram pour dem produire waat quoi loolu moo tax tam mu yegg yenn prix mu ne boobaag léegi client yi ñu ngi ñëw kon di waxaale xar yi waaw am na yu ci jaar sax am na yoo jënd bàyyil la ko fi nga dencal a ñëw na ci yoo xam ne li ñu fay rey ci xar day bëri bon ñoom miin nañ fi nit ñi miin nañ leen suñ leen jaayee xar dañ ko fi jox la xont nga di leen xontaaleel ba ñu suba la tabaski ñu door a ñëw jël ko quoi am na de waaw ren euh, xar am na par rapport daaw ndax xar yore yi a ren la gën a bëri mais xaru coggal yi ñoom ñoo bëriwul lool parce que xam naa ak confinement bi ñu dëkk fu sori comme ay Malek affaire yooyu duñ ñemee ñëw quoi parce que ñu ñëwee ñu tëj leen fi wala yu demee noonu quoi bon daanañ gën a am ay xaru coggal mu gën a bëri nii quoi mais xar moom ren la gën a bëri quoi a bëri a rafet kon na kon parents yi seen kër yi kon war nañu seen xel waaw bon mën nañ dalal seen xel ci benn côté parce euh, mooy xar yi bëri nañ mais tamit euh, li leen di xaw a jaaxal tuuti mooy xar yi dafa cher bari nañ mais dafa cher xam nga boo ko boolee dëkk bi nu mu naqaree tamit euh, da ngay comprendre parce que fi laa dëkk xam naa li fi xew. xam loolu moom dana jafe parce que jàpp naa ne man xar dootul yomb Sénégal man loolu laa jàpp ndax euh, dafa am jamono comme bi ma fi tàmbali di jaay xar boobu saako prix saako prix paas bi nga doon jar deux mille cinq cent trois mille saako ngooñ jar 1500 mais jamono yi ñu toll nii saako ripaas 10000 lay jar saako ngooñ 5000 bon ku mel ni man tey xar yi mu teg fii tey waxuma la li ma doon xontee ci kër ga mais fii tey chaque jour damay xontee saako ripaas saako ngooñ donc chaque jour prix xar yi normalement waroon naa di ci teg 15000 pour mën cee génn or que la ma doon jaayee toujours moom laay jaayee rek mais terewul loolu noonu mooy tax xar yi di cher parce que ku jar sa xar sa kër loolu nga koy dundalee ba keroog nga koy jaay donc day métti day métti. mais tamit boo leen jàppee tey li ngeen di yar. ba jàpp nii instant li ngeen di yar da ngeen fi ngeen war faytee wala natt li nga xamante ni mooy seen prix ngeen defee ko noonu est-ce que tamit dana arrangé ñenn ñi. non du demee noonu c'est-à-dire lu abordable parce que tey ñii di jaay xar ak ñii di yar xar yëpp amul moo leen ci bàyyi mais du am-am. parce que tey mën naa la jox exemple benn xar fii boo xam ne man wóor na ma ne daaw man maa ko jaay benn nit fii à cent soixante na xar bi ba ren mu génnaat ko di ko jaay. et pourtant tey dañuy wax ne 400000 yooyu sax 400000 la ko bëgg a jaay mais ñëpp nee ko mënul am 400000 ñun ñëpp ko mënut am 400000 donc kat boo xoolee léegi li ci ëpp foofu mooy 225000 xar boobu lekk na lu ëpp 225000 lekk na lu ëpp 225000 et pourtant bu ñu ci bëggee teg 225000 ñëpp nee nañ ko mu mënul nekk. kon tey looy wax si loolu pour ñi nga xamante ni ñoo ngi yor seen xaalis ñëw di jënd si ñu xool li nga xamante ko noonu du leen gaañ du ñu gaañ seen bopp. non euh, jënd xar méttiwul psychologiquement boo ñëwee nit ku nekk xam nga li sa poche am demal xool xar bu tolloog loolu nga dem jënd ko xam ne lii la la yàlla may moom la la sédd nga dem Sénégal jëm kanam mais nit ñi dañuy ñëw yore par exemple cent cinquante mille ñoo bëgg xaru deux cent cinquante mille du yomb du yomb parce que ki la koy jaay soit jëndee na ko lu ëpp loolu wala sonn na ci loo xam ne ni ëpp na loolu loolu rek moo war a xar jafe parce que tey mënoo a laaj ñaari place ñetti place te xamuloo équivalence lu xar yi di jar parce que su ma ñëwee laaj fii benn xar tey nga ne ma 150 000 ma dem laajaat feneen xar bu toll noonu ñu ne ma 150 000 ma demaat beneen pour ñi nga jënd mooy ku ci nekk xam nga li ne sa poos. soo ñëwee laaj ñaari mbaar ñetti mbaar xar ñu wax la même prix jàppal ne xar bi loolu lay jar man loolu laa d'accord nga nga jënd li nga tollool dem parce que ku nekk ak li nga tollool boo ko defee rek du du metti mais boo ñëwee yor cent 100000 bëgg xar 250000 vraiment du yomb du yomb ci ki la koy jaay du du yomb ci yow mu koy jënd parce que ki la koy jaay xar bi am na fu mu nekkoon da ko doon toppatoo ba mu toll noonu su ko jaayee jarul da ko fay delloo kooku amul lu ci per yow mi bëgg a rey yaay am looy per parce que euh, li ngay perte mooy euh, yow mi bëgg a jënd euh, ki ngay ki lay jaay xar bi boo ko fayul prix bu jaadu du la ko jaay waaw tey boo gisee xar daaw comme li mu manqué woon xar li mu manqué manqué daaw bëri na ñoo xam ne dañoo delloo ci seen xar yi parce que bu ñu fi nekkee ba ñu suba la tabaski ñu seen xar yi dañu am problème parce que xar yi ñibbi nañ nga topp di wër di wër di wër di wër finalement doo am xar loolu moo indi ñàkk xar bi waaw li may tàggatoo mooy di leen sant di leen gërëm bu baax parce que li ngeen def nii lu am solo la euh, ngeen di sensibiliser nit ñi di leen xamal aussi li nekk ñun bon ñun itam daf ñuy permettre ñu mën a exprimer pour wax nit ñi réellement li nga xam ne moom la ñu jànkuwanteel fii ci dara li quoi. ki ñu taxawal nii dañ ko fekk fii muy waxaale xar moom tamit bu doon benn client bi nga xamante ne mi ngi ànd ak ay doomam ñëw di waxaale xar yi mais ni ñu ko déggee muy waxaal dafa mel ni affaire yi dafa cherche moom moo tax tey ñu fas yéene ko dégg suñu micro laaj ko moom tamit nan la prix yi demee ak nan la koy jàngatee kilifa gi nuyu naa waaw maa ngi lay fay ku baax. tudd naka la. Euh, Ablaye laa tudd sant Sarr. Ablaye Sarr ñu fekkale fii ngay jënd xar. waaw loolu muy dëgg sax. nan bi demee. waaw prix yi moom vraiment xar moom métti nañ trop trop trop neexut laal quand même. Mm-hmm. neexut laal mm-hmm. waaw. parce que am na xar yoo xam ne xam na xaru am na xaru mu daal ay 180 lañ wax jëm kaw. waaw 180 200 ainsi de suite quand même man maa ngi bëggoon benn xar bu yem mm-hmm. mu mën am ay 150 mais fii moom vraiment affaire yi yombagul daal. mën ñoom léeg-léeg am na ku ñu si dégg suñu micro mais dafa ñu xaar boo bëgg rek am na fi ah waaw loolu loolu de waxu jaaykat la rek waaye bu client bi taxe moom wax dëgg fa yàlla doo comprendre doo comprendre chaque fois ay cent quatre-vingts lañ wax jëm ci kaw daal loolu ah man moo a ci jaaxal dama yaakaar nag peut-être bon du client bi direct mooy ñëw kii ki moom xarit peut-être day am ñeneen ñi ciy laxasu comme daal bu client bi ne peut-être jaayal leen ma naa ñoom dañ ciy bëgg dañ ciy teg dara teg dara teg dara xam naa teefankat yi ñoo ciy teg dara moo tax prix bi parfois di yéeg fi mais tey jii bu fekkoon tey borom xar mooy jaay peut-être moom bu déggee prix ak coono bi ak kon pandémie bi nekk fii peut-être dina jaay loolu daal mooy coono bi daal. si pandémie boobu laay ñëw sax mu mel ni kon tey pandémie bi war nañu xool si pandémie bi wàcce li nga xamante ni mooy prix xar yi pour ñenn ñi nga xamante ni ñooy parents yi. voilà surtout ça nag war nañoo xool loolu trop trop moo tax état bi vraiment waroon na discours jàpp ci parce que ñu xam ne réew mi neexatu nam neexee woon neexatu ko voilà lu waay am fi mu nii xaaj ba ngay am waaw kon nag ñoo war ñu war a gën a seet ci c'est vrai que nag yar say xar nag ba heure bii tamit nga bëgg koo wanteer neexul waaye tamit nag da nga xool nit ñi aussi doole yi dematut demeetut noonu gars yi ameetuñu noonu quand même loolu dañ ci war a jàpp nañ gën a xéewale xar yi waaw te li ñuy wax ne ménd bu ñu ñëwee ci terrain bi nañ koy def maanaam bu ne loo am nga am xar loolu dee ko dégg rek wax ju yàqu la tey fi mu ne nii xoolal fi mu ne nii li ma bëggoon xar mi ma gën a bi ma choisir man cent la waa ji taxaw fay naa ko 150 145 mu bañ waaw mu bañ nee na moom 180 rek jëm waaw loolu daal kon mu mel ni yi nii gars yi duñ laxas jaan dañ cee laxas ak jaan ak doole fi ne nii moom xam naa dañuy jàpp ne comme léegi rek gars yi ñëwaguñu peut-être bon moo tax ñu laxas jaan ci xar yi mais xam nga ne fii ak ñaari fan ñetti fan moo ci des waroon na prix gën a wàcc wax dëgg fa yàlla waroon na ko ñu xoolaat carrément nit ñi waaw parce que mbir mi aussi benn fan la rek doo ñëw lépp lépp jënd xar après tabaski daa am après tabaski am na de message ngay wax si ah man daal li may wax mooy ah na ñu nañ mbir mi jaamu yàlla la nañ ci jàpp ñu xamne mbir mi jaamu yalla la ah ñu def ci xéewal parce que lenn ku ne kenn ku ne ca la ngay liggéey ca nga mëna jaamo yalla voilà nañ ko woyofal prix képp am yalla am ñepp am ñëpp ci discuter jàmm parce que après tabaski dal am na ku baax. xar dama jaay xar de 150 140 180 200 cent quatre lañ commencé jaay xar yi. loolu bi nga ñëw ak léegi yan jàng yeen yan jafé jafe nga dund fi ah jafé jafé am nañ jafé jafé ndop am nañ jafé jafé xooraay loolu lañ am. jafe-jafe boobu rek lañ am. mu mel ni am na client yi nga xamante ni ngi jooy boobu léegi naan prix yi gars dañ ko téye ko bu mu teng ñu bëre bu ñuy wàccee par des fois seen prix dañuy bàyyi ba tabaski bi des ay deux jours nga jàpp ni loolu yoon. déedéet loolu yoon kar ah, esta yi kar mënul yom am lu tax kar mënul yomb esta yi Mauritanie ma am problème ak Mali kar yi foofu la doon jógee xam nga Mali dem nañ ba léegi dëkk bi amatul léegi sécurité kenn mënul yóbbu seen alal alal jàmbur bëgguñ seen kar yi dem dañuy bëgg seen koom-koom def seen réew loolu lañ Sénégal yi xamul il faut ñu xool lool nga dem fi biir Mourtani nga jënd foofu ramas yu mot kar fer yi ñoo bëri sax ngooñ mu ngi jar douze mille cinq cent saaf rip euh, kii ngooñ mooy jar six mille francs saaf rip pas douze mille cinq cent loolu day métti sax suur yaa ngi jën ndox yaa ngi ay ndax nit ñu ngi lekk loolu day métti. loolu loo yaakaar loolu loolu lu ko war mënti loo yaakaar lu ko affaire bi gaawul taw loolu du ren rek ren moo doon ta daaw moo doon tànn ren ren gaa yi dañuy tiit yëpp nga may wax dama indee sama kar gaa yi doon jóg ujaa ci damay des le fii sa kar ñu jënd ko léegi loolu mooy problème bi léegi kenn nangutul léegi ñëw eh, Dakar Dakar fere bi moo métti léegi dangay des àll bi boo gisee Gambie yi ñu jënd seen xar boo gisee daar jobaaj daara nga foofu nga yem boo desee nga bay seen xar wut àll bi léegi fii dangay ngay jël ot fer bi ma daal moo bari loolu moo tax xar yi mënatul yomb man naa dama yaakaar xar dana jeeg waaw xar dana jeeg waaw. mu mel ne golo yoo tamit yemoo si jaay xar kese mais am na association bi nga xamante ni da nga collaborer ak ñoom at bu nekk nga leen di jox xar. ah loolu suñ colère dañuy leen jox ku ñëw dalay jox xam dañuy yor cent dépasse ñoom xar yi cent quarante ñu démarré cent cinquante dem si kaw ah yow na yaa xool solaire liñ lay dagg. aaras na nga jël xar boobu ah yii ñu jël ni liñ imoon indoon naa lu mot juróom téeméer xar téeméer juróom téeméer xar léegi yàlla dogal na ñoom ñu ngi ko joxe li ñu jaare yoon léegi tuuti mos des chaque jour ñu ñëw ñoom yëpp chaque jour bu ñu ñëwee dañu jël ah loolu amul problème ah loolu yee affaire bi corona bee la rek af ah, xam affaire bi dem fi biir Mauritanie nga jëli foofu kar nga indi leen ñaar yi indi leen forestier nga jënd leen loolu mënuñu dépasse xar yi ñoo bari xam nga kar lu ëpp nit lu muy lekk chaque jour lu ñuy lekk lu ngoon juróom saak ngooñ rippa juróom saak rippa lool day métti ak ndox bi ngay fay ak sàmm yi loolu métti na de loolu la il faut ñu xoolaale loolu lool mooy problème mais si biir loolu loolu mën teg yéen ba jàppale ñenn ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw pour ñu am xar tabaski comme ñëpp. c'est-à-dire eh, xar yu ndaw yi ñu ngi koy wàññi ñu ngi commencé jaay xar cent trente cent na loolu amul. loolu kam loolu amatul léegi même àll bi léegi boo départ xar bu am six mois da nga ko jaayee soixante quinze surtout ma nga jëree ko transport be fii ak lekk bi loolu mënoo loolu ka mënul nekk. mel loolu bu ah, daal bu ñëwee incha allah dañu di juboo ak moom man client bu yor xaalisam du ma mu dem surtout maanaam lii lépp ay 6 mois wala 8 mois loolu kam il faut nga koo loo si am bon bon tuuti nga teg si loolu loolu moo indi jafe-jafe bi ku indi xaalisam daal ñu ngi fay dana jënd ak moom dana jëflante moom. bu ma ak ñaari pël. avec l'amicale des gens de EMS, Mme Kebé Fatih Benal Salam est la présidente. Nous, on a eu à une convention avec deux pôles pour tous les agents du groupe La Poste, ça veut dire Poste, Poste Finance et EMS, qui ont soxla xar dinañ def certains contrôles pour te permettre de ñëw jël sa xar nga nga fay sur sur des modalités bien bien allégées quoi waaw mais xar dans, daanaka xar yi cher na trop rawatina un euh, de cash mais bon mais nak boo lab da koy joxe ben acompte le reste ñu war ko talal pendant 2 mois 4 mois. bon si xari yi seer na yooyu noonu mu mel ni kon tay bo xolé jangat bi Covid 19 bu nek ci dëkk bi. Mhm. jangonté na lu bari la nga xamante mo waron waroon dox si koom-koom bi. effectivement waaw comme ni nga waxé hein ah, parce que xam nga bo xolé la plupart des gens toog nañ presque ay 3 mois ko ñu sen sen sen sen sen salaire loolu bok na ci li tax xari cher. n'est-ce pas yaa am ci ño xamne bëgg nañu jënd ay xar mais amuñu xaaliss bu ñëwé mbëkënte ak euh, xar yi cher day metti mën naa wax dal ci gattal ne Covid 19 bi bokk na ci li tax xar yi cher quoi. bu melni kon tay amna ñu jot dekk suñu micro ñu xamal ñu kat carrément xar yi yomb na yomb bi nga xamanteni moy lolu mais ñuy jënd ñi ñoo nangul gëné xaaliss waaw comme nima la ko waxé ah xar yi mën na yomb mais man mi di wara soxla xar mën naa ñëw baña am xaaliss

19 bi taxna ba nit ñi amuñu xaliss pour téla jënd xar motax tax xar yi des en plus fin de mois bi ba léegi Macky Sall waxoon na pour nañu virer au plus tard vendredi gaay commencé guñu virer motax ah peut-être mën naa am entre tey ba mercredi jeudi xamna nit ñi dinañ déplacer wu ñëwut seen xar quoi. buñu message ngay lancé par rapport lu Macky Sall waxoon té boobu ak légui am na ñi nga xamante ni jotaguñu seen wàll ci affaire waaw comme ni ko Macky Sall waxé ñu ngi ñaan tous les directeurs de société ñu fexé def li Macky Sall wax Macky Sall néna pour nañu virer. salaire pour que nit ku nekk mën a jënd saxaar balaa tabaski bi di ñëw. ak moment Covid 19 tey ana ban message tamit aussi ngay wax ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi pour mu gëstu ñi nga xamante ni seen loxo jëru seen ginnaaw. waaw njiitu man message bi ma koy lancé mooy na na subventionné pël yi nga xam ne ñoo ñu jaay ay xar parce que pël yi bu ñu leen subventionné lu jëm ci wàllu aliment bi ñuy jox seen i xar dinañ am possibilité wàññi seen prix xar ba ñu ñii di ñëw di jënd xar dinañ ko mën a jëndee à un prix. baa quoi. opération yi fi doon am daw daw jéeg ak année yi passé yëpp bii dafa wuute parce que feebar bi moo tax waaw xar yi nag cher nañ waaw cher nañ lool. sa boobaak léegi client yi ñu ngi ñëw di waxaale. waaw nit ñi ñu ngi ñëw client yi dañuy ñëw mais dañuy ñëw rek après waxaale dem mais euh, am na yu jar nag am na yu jënd mais des na. waaw clients yi génn gu ñu à 100 pour cent quoi. mooy ñooñu di waxaale dem est ce ñëw bu ñu ñëwee fii tey fixé nga leen prix bi nga xamante ni prix bu jaar yoon man moom prix prix yu jaar yoon laay def prix yu normal laay def donc sa dépend ci classe bi ak li nga bëgg ak euh, raasu xar bi aussi waaw. mais fii bi ngeen fi nekk ak léegi ana yan jafe-jafe ngeen fi jàngonteel. boo jafe-jafe yi moom euh, mooy li ñuy wax rek ministre bi ñëw na fi barki démb wax nañ ko ko ndox mi mooy suñu jafe ak euh, sécurité bi.

dañuy dëkk ñeneen ñi nga xamante ni suñu micro ñu xamal ñu kat carrément jaaykat yi boo leen dëkkee micro laaj leen dañ naan prix yomb na mhm. mais soo leen demee yéen bu ñu bu yi ñoom li leen di wax ak ñu def bokkul ana yan jàngat ngay def si jàngat bi mooy euh, ça dépend ci ci ci ci ci ci clientèle bi rek parce que am na ñoo xamante ni dañuy ñëw bu ñu waxaalee benn yoon ñaari yoon dañuy jënd mais am na ñoo xamante ni tey jii boo leen waxee yenn prix yi seen poche euh, seen loxo eggul seen ginnaaw boo leen waxee yenn prix yi ba pare tam ñoom tam dañuy ñëw bëgg jënd xar bu xar bu baax te duñ ci def yenn prix yi aussi donc euh, loolu ça pose problème. est-ce que tamit jotul tamit yéen jaaykat yi ngeen xool la ngeen mën def si côté googu parce que tamit doole yemul poche yi tamit tolloowul ngeen mën dawal compilation jàppale ñenn ñi nga xamante ni tamit seen dox jëru seen ginnaaw. Hmm. waaw man de personnellement maa ngi jàpp bu baax a baax a baax ci li may def parce que li ñuy wax rek ci li nga am li nga mën ci ngay jaamoo yàlla.

donc moo tax euh, ren affaire yi xaw metti mais euh, yalla mi dara tëwul yalla dañ koy ñaan rek mu jëlee fi feebar bi ni mu gëna gaawé ta xamni laal na fépp quoi waaw te si éleveur yi sax la gëna metti waaw metti na si ñom trop ren waaw parce que xont bi xont bi dom day dafa metti trop dafa metti waaw képp kuy éleveur xam na ni xont bi dafa metti looloo tax sax gars yi di yokk yenn prix yi mais

c'est normal aussi parce que dund bi metti na moment yi ni parce que man j'ai été éleveur comme eux ba légui sax maa ngi élevé maa ngi yar ngi jaay parfois mais je j'étais juste venu voir waaw parfois damay jaay di jënd aussi. mais lan moo nga ni c'est normal que ni xar yi war na mën nekk ay 180 190 ana cent nga nga xamanteni sen loxo biir sen dina non non c'est pas parce que damay wax pour euh, wax nii kat la donc xamna parce que légui

à mon avis, je pense que si l'État aurait subventionné les éleveurs, peut-être qu'il y a un prix excessif ici marché bi dina ah. y a une grande partie boo xamante sincèrement defu ko exactement exactement ban message ngay lancé état je lance un message à à nos gouvernants nous bot au moins ñu ñu bàyyi xel ci éleveurs yi parce que dans tous les domaines de de l'élevage que ce soit mu poulet de chair wala qui c'est comme ça parce que prix tu as l'impression que du jour au lendemain day gën a donc yow boo dul jaaykat wala nga nekk di ci yëngatu parfois da ngay ñëw ñu wan la un ñu wan la benn xar nga japonais ne gars yi dañu exagérer wala dara fekk na

te xam ñëpp xam nañ ne ku ci crise sanitaire tu entres effectivement dans, euh, la crise économique donc euh, voilà